sallam di wax ne nu awalul wujuudi wujudan wa aslul usuli wal yàlla tegoon ba fi dara nekkut bu yàlla ji moo bu day xam ne am am kenn amut dara seede ndax lenn lu fi nekk lu may yàlla waaye ba nga xamee ne yàlla bëgg na ñu xam ko di jël matière première bi nga ci la ñuy defee lu leer gi nga xam ne ci lañ defee lépp loo xam ne ci lañ yàlla amul fenn ci jëmmam ji rek day tax mu jël ci jëmmam def ko muy xaqatu Muhammad mu feeñu kaay boo xam ne mu ne ku ko war a fii yaari mu nekkoon naa am ndaam ma xam ne kenn xamuma ma bëgg ñu xam ma ma daal di defar yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci moom nag dañuy xamee moo tax daan wax ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne dafa seen différence rek mooy kii moom may kii may waaye moom mooy yàlla ji ko may yonent ba dara ci lu may kii mooy kii yàlla kii moom may rek kii dañ may boo tax loolu amee mu ne mu mu ne mu daal defar yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu nekk fa mu nekk kenn xamut kenn xamut na la du jaamoo yàlla di bennoo yàlla di wekk yàlla ba mu soobee yàlla nag pour mu xam xamal nit ñi mu am te am ay mu daal di seet te jëli te lu mel ni seetu seetu soo jàkkaaroog moom looy gis yow la te yow soo yëngatoo mu soo ree mu ree waaye nag mu daal loolu foofu la yàlla mën na jaaree pour woon ak yonent yàlla Muhammad mu dayob taar dayob mat yàlla dina am kaaw yàlla mu def ko nekk kenn amut booba àddina asamaan amut suuf amut kaw amut keneen leneen amut du dul yàlla rek yàlla rek moo fi nekk ak jëmm ji nga xamee moom mooy moo génne ci moom muy leer googu leer googu xamee na xamee nañ ko nu nekk pour àggale nit ñi ci li nga xam ne moo nekkoon ci kawlu bi nekk fii ba nga xam ne ba àgg ci li melokaan yi ak li yàlla mi def nu ko defee ñu ne mu ne su fekkee nag ne nit ki ne bàyyam moo ko jur ñu ne bàyyam ku ko jur ñu ne kooku ku ko jur fu ñu demee ba mu jeex dana dem ba ñëpp dellu ci aadama su ñëpp delloo ci aadama nag aadama itam ñu delloo delloo ko ca leer googu nga xam ne mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo la ko dénkoon ba tax yàlla yàlla lim njëkk a bind te ba nga xam ne seen différence rek mooy kii moom maye kii lañ may mu ne ko lu dul loolu moom moom yonent yàlla Muhammad moo ko moom rek ay moo tax mu ne qul in kuntum tuhibbuuna Allah fattabi'uuni yuhbibkumu Allah su ngeen bëggoon yéen su ngeen bëggeen yéen yàlla topp leen yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su gërëmee rek ma gërëm moo tax kër kër jii ñuy def yëpp gàmmu geeg gàmmu aat geeg yooyu yëpp dañ koy fàttali gën ci mbindeef ki nga xam ne moo gënee moom ci bisab tey bii ci lañ ko tuddee Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mu daal di ñëw nag nekk ci nekkin pay bi nga xam ne mooy pay bi yàlla ba ñu daal def yàlla ci kattanam ci la defaree pay bi yonent yàlla Muhammad ci pay bi yonent yàlla Muhammad boobu itam mën naa màgg ba nga xam ne mën nañ cee génne yeneen tax ñu naan muy mulku ak malakuut ba nga xamee ne naa moom moom yonent boobu nekk na fa mu nekk ba nga xam ne yàlla bëgg na koo bind bëgg naa bind nag ñu ko jaamu mu bind yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi waaye nag ba mu koy defat daf koo jaarale ci aw aw ci melokaanam ndax dafa koo jaaral ba mu ko defee moom ak jabaram xawa ba mu ko bindee pare def ne ko askun anta wa zawjuka aljannata booba malaaka ak ñëpp ci kër lañ dëkkoo rek rek mu daal di ne ko nag danaa la may boyal ji lépp loo xam ne suma moomeel la waaye moom na nga na nga beru garab gi bu ko lekk rek rek fekk nag yàlla moom moo nam rek pour gën a jënd yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu indi ko ci àddina bii nga xam ne ci la fi day nekk rek day mu bind ay minaakoon ña ko topp mu gërëm leen yóbbu leen ci këram nga ci aljanna yàlla nañu ci yàlla boole ñi nga xam ne nag ñoo jaar ci beneen yoon ñooñu yàlla nañu ci yàlla musal mu yóbbu leen ci këram nga ca safar moo tax yàlla bi muy bind aadama bi mu bindee aadama ba dafa gaaral ñooñ kaw ak ñuus moom la alquran di nettali inna aradna lamanata ala samawati wal ardi والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان moom kóllëre googu nga xam ne yàlla daf koo gaaral ñooñ kow gaaral ko ñoom suuf ñoom ñëpp ku nekk gàntal ne yàlla bëgguma nga bind ci jël ci man benn cër boo xam ne dafay da koy mere di ko yóbbu safara fay mu daal di gaaral ko aadama rek ba mu ko gaarale aadama mu ne ko su fekkee ne sa sa ngërëmaa nañ ci rek man nangu naa mu ne ko aha danaa la tuumaan nag mu ne ko su moom moom caag su fekkee ne sa ngërëmaa ci rek man nangu naa mu ne ko yow mi nga xam ne yow yaa nangu examen bii nga xam ne ñooñ kaw ak ñoom suuf ñoom ñëpp kenn ku ne gaar nañ ko nga gàntal yow nga nangu ko kon ne médaille bi ma lay def mooy dama lay def mu ne maam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi mu mel ni aadama moo jur yonent bi waaye dëgg dëgg li dëgg mooy yonent mooy bàyyi aadama mooy bàyyi bàyyi mooy bàyyi doom yi moom yàlla daf ko tànn ca ca tànn moo fa nekkoon ñoom ñëpp ci ñoom lañ jëlee ba nga xamee ne yàlla bind na aadama ba di ko malaaka yi di ngat ne atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu laka mu ne leen inni ya'lamu yàlla ne leen inni ya'lamu ma la ta'lamuuna xam naa loo xam ne xamu leen ko ba ko ba mu ko soppee nag ba mu ko sàppee mu daal di ta teewal aadama wa allama aadama asmaa kullahaa summa aradahum alal malaa'ikati mu daal di jàng indi aadama teewal mboolem malaaka yi fekk yàlla kii wal na aadama xam-xam yu njëkk ak yu mujj yi nga xam yëpp leen am biwu ni bi asmaaya awlaay ngul mu saadiqina mu ne leen na wax leen ma li ma def ñu ne ko subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim yow tudd nañ sag sell yow suñ borom ñun mënuñoo xam lu may xamul loo ñu xamante ni xamaloo ñu ko rek ba mu laajee Adama Adama daal di lu mu ko laajee rek mu tontu ko lu mu ko laajee ak lu ko war daal tontu ko rek mooy kon nag su na ngeen ñoom ñëpp ñu sujjóotal aadama bis nag gis boppam ba xam ne ko xam ne barki démb yaa fi defar suuf ak ba pare tey daal di ne mu ne ko nag kon ñoom ñi ci des yëpp boo dem malaaka yi ak mbindaa ko ñoom sujjóot ba ñu sujjóotee sujjóot ne nañ ab génneeku la ñii ne ay fan la nelaw moom la alxuraan ne laa yaasuuna llaaha maa amarahum wa laa yu'maruun def lu may ndigal àllaaxira yëpp ibli bëgg nekk doon gi aljanna dana lu nekk bu mu nekkee waaye yàlla dàq na ko mu ne yàlla nga xam ne moom doo mooy doomu aadama mooy ko yàlla mënoo dem ci ku ne lu mooy ma neex rek mu ne summa la aatiyannahum min baydihim wa min xilwaan aymaanihim wa an shimaali la tajidu aktharahum shaakiriin so danaa leen day joor danaa dikkee càmmooy danaa leen dikkee xarfu dikkee penku mu ne bàyyi mu ne ba muy wax buntu buntu bi nga xam ne ci rek rek mu ne wax ca kaw ak ca suuf moo tax waxtu jàmm bi ci ñaan dafay tàllal ay loxoom jëmee ca asamaan du caaga ne yàlla nga ca asamaan su fekkee ne foofa iblis am fa benn bunt rek waaye su fekkee ne jàmm bi su yónnee itam أقرب ما يكون من إلى إلى إلى هو ساجد mu ne mu ne nga xam ne mooy buur bi nga xam ne yàlla waxtu woo su jootee ba su jootee gën a jege rek dafa nekk ci biir suuf si waaye foofa seytaane amu fa bunt rek noonu la àddina demee nag mu daal dem aadama ba ko yàlla dafa mu daal di fekk nag malaka yi dañoo waxoon ne dana dana bind bind ay nit ñoo xam ne dana ay miracle dañuy dafa ñi topp ndigalam yóbbu ci kër ga nga xam ne dañoo mooy mu ci kër gi nga xam ne moom mooy safara rek yàlla ñu ci yàlla musal moo tax yàlla juróom bisi débéer bisi dimanche bii ci la yàlla sañ ci àddina nga xamee kon ki nga xam ne mooy sangi sangi muy muy muy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bisab tey bii mooy fàtt dafa ren dafa tolloo ba te dimanche ci la yàlla sancoon àddina bi waaye bisab dimanche itam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci samedi ji dimanche ji moom lañ doon màggal rek day ba dimanche yi de see muy bis bi nga xam ne ci lañ tuddee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ibn Abdullah moom kooku yàllaa ko tànn moom tànn fem mooy Muhammad ibnu Abdullahi ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul ibnu Qusay ibnu Kilaab ibnu Murata ibnu Kaab ibnu Looy Demet mooy askan woowu e, e, kii ngi wax ne mu ne mu ne mu ne muy askan woowu nga xam ne mooy Muhammad ibnu Abdullahi ibnu Abdul Mutalib ibnu Hashim ibnu Abdu Manaaf ibnu Qusay ibnu Kilaab ibnu Murata bàyyi da ko daan netti da daan wax ne yow sa askan wi rafet na askan woo xam ne lépp ngëneel la askan woo xam ne lépp taar la waaye mi ngi mel ni caqab urus caqab urus lu mu rafet rafet am na diggal bu ne ci digg ba moo gën a rafet day mu ne ko sa sa sa askan wi rafet na waaye itam sa jëmm ji nga xamee moom mu feeñ ci bisab tey bii nga xam ne mooy bisab bi biñ koy tuddee Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko bis boobu itam rafet na da ba loolu amee moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag mi na mi naa koon yi nga xam ne ñoom doon nañ jingat yàlla ba mu defaree aadama ba mu defaree aadama ba mu def ko ak moom malaaka yi wax ne ñu ndax xamuñ mi daa ko mii suñ borom di def lu mu ci jublu mu toog ab diir boo xam ne ñeent fukki fan mu daal di mu daal di def ban ban ban buy kalang-kalangi mu degaat ci ñeent fukki fan mu daal di dawaat mu mu daal di def suux mu def ko yeneen ñeenti fan yeneen ñeent fukki ba mu demee mu daal di dem ba mu yàgg ba mu mot nag mu daal di mos ko ruuxu ba léegi ba léegi waxtu woowu waxtu wi yàlla di defaree doomu aadama ci mbiram ndeyam itam pare ba léegi di ñeen ñeen fukki fan yooye mooy ñeen ñeen mooy ñeenti weer rek ñeen ñeenti weer yu nekk dana dem àgg ci benn étape boo xam ne dafay dafa dafay do toq toqantal bana mën yu banaa gannaaw gi mu doon suux gannaaw gi mu doon yàq gannaaw gi nag yàlla daal di def ci def ci def ci roxu rek day roxu googu nga xam ne ba yàlla dafa ne aadama ba mu ñëwee ba mu demee ba mu ñëw ba ci oom yi mu tànk yi ba mu demee ba àgg ci bi mu tisoole bi mu tisoolee jibril ne ne alhamdulilah jibril wax ko subhanallah allahu akbar yonent yàlla ko wax laa ilaha illa allah yonent moo ko wax rek laa hawla wala quwwata illa billah aliyu boobu si yonent sanga booy njëkk booy mujj moo ko def rek day moo moo ko def rek ba yàlla defaree yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ba aadama ba mu ca dawalee ruuxu ba ruux ba mu dawalee ruux gi ba pare leer googa nga xam ne moo ci ën moo mooy ruuxu doomu aadama ci ruuxu la ci ci ci seen malaaka yi ñoo am ñoo ñoo leen di def ruuxu ruuxu tam bi nga xam ne moo nekk ci malaaka yi doomi jëmmi yaram yàpp yarami doomu aadama ruuxu ga ci nga moom moo koy moo yëngal boobu ci malaaka yi la jógee day waaye ñoom malaaka yi itam ñoom itam mën na ruuxu goo xëye moo leen di yëngal moom mooy leer googu nga xam mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa tax ba nga xamee ne yàlla bi dawar na xawa ba jëmm ji pare rek day ni ci ruux googu mu daal di tis ñu tisoole ko tisoole ñu ñu wax laa moo tax alhamdulilah ana moo ko njëkk a wax subhanallah jibril moo ko njëkk a wax allahu akbar yonent yàlla noonu xam nga ñu wax laa ilallah ibrahima moo ko njëkk a wax la hawla wala quwwata illa billah yo azim mooy njëkk a woy mujj yonent yàlla muhammad ko ñëkk wax rek ba loola mu daal di ba yàlla defaree ñu yàlla defaree adama ba mu ko defaree ba pare jël faar ak caamoyam di defar ko fekk nag buggee rek bañ daal di buur jël na bëgg a jël malaaka yi xaaju ko ne ko lan nag ko nag nag nga ne ci dara loolu mooy def mu dagal bàyyi mu ne mën ko takkee ci junni ci adama ne dul ci yonent bi yoon ñi ne ñeent ñi ne ñi ne fukki yoon waaye du ci mën mooy adama ñi xëy ñoo saani ñooy rek day ci seet ak kay caan nga julli ci yoon yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu yàlla moo leen yonent yàlla moo leen mag de adama ni ko ndéegam taan la amul ndey amul bàyyi waaye bu ko defaree ba pare mooy mu jël daal di defar ci nga xam ne mooy jabaram yàlla ndaa ko dana mi naa ko xam ne amul amul bàyyi mu ko def ci loolu mooy aadama ne bàyyi la am moom xawa mooy xawa ndax ci aadama la kon ci góor la jógee jigéen bokk ci de su fekkoon yàlla dafa am ko rek ñu am na loolu am na xam ne yàlla dafa ko te moom yàlla dara tëw moo tax ba mu bindee yoon ba mu firi mooy jaamukat yi seen nag ya bàyyam yaa daf ko bàyyam daf ko daf ko nisaroon ne daf ko ba booba jaamu kii lay seen mooy seen diine rek day mu nisar ne su am da def jox ko église bi nga xam ne liggéey benn liggéey laare waaye ba doom ci ñëwee doon jigéen mu laxas ko waaye man moom muy Mariama Mariama jaamu yàlla li seen làkk njox ko taxam Zakariya ñu jox ko eh, muy Zakariya Zakariya daal yar ko ba mu am fukki at ak masa masa gis góor sàkka laa mi soog moom yàlla soobee yàlla nag mu daal di gis mbir dem di sangu rek Jibril daal di ñëw jàpp ci mbuum loxo boobu rek daal war rek mu daal di ëmb ci saa si ñu ne ko amare ah, ama def nga xay ma amara foog mu nañ ko la ñu ne ko foo jëlee lii yow dañ doon wax yaay maam ba mel ni Zakariya foo jëlee doom jox amul baay waaye mu ne xanaa wax nañ ko lëf mu ne laaj leen ko ñu ne ko kenn foroogu ko naka lay ñu naka naka lay laaje mu ne laaj rek ay yonente alayhi salaam daal di taxawal baaraamam nii doogut ne inni abdu ataani alkitaaba wa jaalani biye ma jaal baraka ay dama kutu wa salaati ma dumtu hayy mu jóg taxaw ñu ne doom ji xale doom ji ne man jaam yàlla mu ne ateen de xal na ma jox téere boo xam ne moom la ñu wax li jiil wa yonentu jaal dana def doon barke wa awsaani bi salaati yàlla digal na ak asaka maa dum teeg maa ngi dund rek mu ne waaye mu mu mu mu mu teralal way juram bàyyam la wax waaye ndax waxul suma ñaari way ndax moom amut bàyyi ndey rek la am de mu dal li mottali kéemtaan gi nga xam ne yàlla defoon na ko ci aadama aadama amul ndey amut baay xawa bàyyi la am waaye amul ndey moom Mariama nag lay Isaa moo mujj ci yonent yi moom itam mu am bàyyi mu am ndey te amut bàyyi rek day moom nag mu ne moo tax xamoon na mu ne xamoon na ne awu danañ wax ne yàlla la ndax dañ juddu ci te juddu ci te judduwul ci baay rek day waaye nag moo tax ma loolu la njëkk a weddi rek day bàyyi mu ne yow ma la yow ma alastu bi rabbikum yow ma yow ma qiyaamati mu ne mooy njëkk a moom bu ñu bu ñu bu ñu bu ñuy attee moom la ñuy njëkk a attee ñu taxawal ko ci kanam àddina bi yëpp ñu jàkkaarloo ak moom yàlla di ko wax ne yaa mariamu ya ya isa ya isa an taqulta linnaasi taxiduuni min yawmi ilaahani min dunillah ndax yow ya waxoon nit ñi ñu di la yàgg ñu di la jaamu yàgg sa ndey lu dul yàlla rek mu lox ba ñëpp jàkkaarloo moom mu ne maa qultu lahum illaa maa amartani bi an abudullah rabbi wa rabbukum wa kuntu alayhi man day waxuma leen ko laaj leen ñi ngi nii diine bi dama fa nekk dama leen di wax ne jaamu yàlla laa jaamu leen yàlla ba fa jógee na yow yaa xam in tu'azzibhum fa innahum ibaadaka wa in taghfir lahum fa innaka antal aziizul hakiim bàyyi mu ne mu ne yonent ab yonent mooy nit dana gëm yàlla ba xol xol dana gëm yàlla ba nooy ba mel ni son mu ne kooku mooy kan mooy Abubakar Sadiq mu ne xol dana dëgër itam ba ba mel ni aw doj kooku mooy kan mooy mooy mooy mooy mooy Omar ibn Xataab rek moo tax suñ demee ca ca ca xare xare Badar buñ demee ba màng mi ñëw ñu ñu eew leen ba yonent bi daal di joxe ndigal ne nañ suñ xëy suñ julee tusuwaar ba pare nañ leen rendi te kooku xam ne goro goro bi yonent bi ci la bokkoon rek day bañ leen taajee nag eew leen mu daa ba waaye mari zin fatimatu bint xataab mi nga xam muy mooy caat mooy jaati mooy jaa caati yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo dem bañ ne ne ñëwee sëgg di jur yi mu daal di ñëw taali xaacu ne abal aasi musal naa ko abal aasi musal naa ko abal aasi ma doon jëkkëram ba loolu amee bi yonent sëlma nee ne lu ma dégg ñu ne ko sang bi nga dégg rek loolu lañ dégg abala si nga xam ne mooy mooy mooy sa goro mooy jëkkër Fatimatu mooy jëkkër Zeynabu moom mu ne abala si bu ko bu ko kenn rey rek mu ne ah jul ci lislaam ci sharia suñu attee nit bëgg benn jullit rek su su su mën na koo sowee rek rek mu ne jullit bu nekk day mën naa sol mën naa mën naa musal te sàkka Zeynabu mi nga xam ne doomu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la mu ne waaye ne ko lu mu yeeg lu mu gaaw na na ñu jar bopp na jot boppam mu daal di yónnee na Seynabu ne ko sa baay day daf maa laaj daf maa laaj eh, daf laaj kii daf maa laaj alal mu daal di jël teen caqam daal di yónnee ko Abul As mu daal di joxe ko bañ ko joxe nag ñu yónni ko ci kanam Yonent sallallahu alayhi mu daal di xool ko nag daal di jooy fekk dafa xàmmee caq bi ndax bi caq bi caqam Xadijatu bintu Xuwaylid ki nga xam ne def na lu nekk ci lislaam def na lu nekk yi dimbale yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom yonentu bi sallallahu alayhi wa moo ko seedeel ne moom moo ma dim moo moo ma jàppale ba ma ñëpp bàyyee moom moom moom moo may doomam ba nga xamee ne kenn jigéen yàlla xañ na ma doom ci képp moom yonentu boobu sallallahu alayhi wa ba mu gisee ba Xadijatu boobu dimbale ne ko bàyyi mu ne loolu tax mu borom xam nit ñi di werante Xadijatu ak Zey ak Fatima Fatimatu Xadijatu ak ak ak Aysatu soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñaar ku ci gën ñii ne soxna mu ne borom borom ñi nga xam ne dañoo gëm jihaad gis nañ moom yonent yàlla Muhammad gis nañ Xadijatu ni mu sonnee ci dimbale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba ko ñëpp di xeex ba mu taxaw rek rek ak ba mu taxaw mu ne waaye itam ñi nga xam ne dañuy gëstu xam-xam di fi di di firi ay ay ay ay ay xam-xam rek day yoo xam ne li ci ëpp sunu genn wàll xam-xam wala si ñetti xaaj xaaj bi yëpp gi mi ngi jógee ci mi ngi jógee ci Zeyn Fatimatu Zeynab mu ngi ndey Aysata ndey Aysata ndey Aysata doomi euh, doomi Aboubacar Sadiq moom moo Aboubacar Sadiq moo doon ànd ak koon yàlla yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ba muy gàddaay moo tax moom rek moom na mës a takk ci jigéen ju ndaw mu daal di yar ko ñëpp ni werante nañ ne Zeynab ne ne moom moom moom ak sawdatu ku ci jiitu ñu ne seen moom ndeyam ndey Fatimatu moom la njëkk a takk ndey moom la njëkk a takk waaye nag da def bi ñu koy takk juróom benni at doomi Aboubacar Sadiq la moom waaye nag danga ne sawdatu moom doomam magam sahaaba woon dafa nekkoon ak moom daal ba mu dee nag ba ba këram dee nag bañ mu jël jigéen moom la ci teg rek nit ñu ne takk ñu ne kii la a takk Aysatu la njëkk a takk daal euh, moom lañ moom lañ ko jébbal ndax fekkoon na mu sëy ba pare ñu jox ko mu nekkaale ci kër gi yonent daal di nigaale ba Aysatu am juróom benn at mu door koo jël bàyyi na ko ñetti at doo doo jël rek doomu Abubakar Sadiq kooku mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu sa wa sallam mu ne ba nga xamee ruuxu googu nga xam ne ba ba ba kii euh, Mariama ndey ndey Isa ba nga xamee ne yàlla bind na ko ba mu am ba mu am fukki at fukki at ak ñett yàlla mu dem di si mare dem di sangu rooxu googu nga xam ne moom wal ci moom mu mu indi rooxo rek day mu ne dafa mel ni ci zaahir jibril mooy baayam su fekkee am na baay ci zaahir mooy baayamu waaye kii baayam dëgg-dëgg de mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne leer googu ba nga xamee ne euh, yonent yàlla Ibrahima ba nga xamee ne moom itam nekk na ba nga xam ba ba weddi weddi baayam wan leen ne moom yéen leen aaye bokkaale waaye ba nga xamee ne yàlla del nañ ko ñu ne son sat leen ko ci safara ñu ne nañ ko dabar qaala haada bi aalihatinaa yaa ibrahim ñu ne suñ seen fekk ñoom dañ doon jaamu xerem xerem boobu nag bañ ko defaree dañ daan bis am boo xam ne dañ koy feetu rek day dañuy toog seen ñam daal di teg ko ca ca ñu dem ca àll ba di jaar di di di ko dañu fa fekk lekk yi ñu togg seen yàlla yi barkeel na ko nu ñu daal di ñëw asara bi nga xëye mooy bàyyi yonent yàlla ibrahima nag de moom ibrahima boobu doomi asara la mu daal di ñëw fekk nag bi moom def doon doon def werante ba moo tax ba mu gisee weer wi def ne def ne kii kii mooy yàlla ba jant ba شيخنا قال لا أحب الله فينا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما قال yaa ngi nii mu ne yow ya ba ko yàlla bindee ba gis bi di weer wi ni weer borom waaye ba jant ba sooyee mu gis weer mu génn mu daal suux mu ne man bëgguma loo xam suux ba jant ba génnee mu ne jant bi kon mooy sama borom moom moo gën a rëy te moo day waaye ba bëcc guddi ga ñëwee itam mu ne yàlla soo ma dimbalewut mu dana réer de waaye ba ba nga xamee ne yàlla moom yonent yàlla Ibrahima rek ba nga xamee nekk na ci yooyu ba mu toogee ba ñoom ñu defar seen yàlla yooyu ba pare àll ba di defar seen feet pour pour pour suñu yàlla ci barke suñu wàccee daal di ñëw fekk rek def ci barke yonent yàlla Ibrahima daal semiñ gor juróom benn juróom benn ba ba semiñ ba ñu daal di gàcce gàcce ko yàlla ju mag ja rek day ñu ñëw ne man faalaha bi aalihatinaa yaa ibrahima bal faalahu kabiruhum haadha fas'alhum in kaanu yantiquna ñu ne ku def nii suñu yàlla yi ñu ne a ah, am na benn xam xale waxambaane wax xam ne moom daf doon dingat suñu yàlla yi la laaj leen ko mooy leen laaj leen yàlla yi ku leen def nii ñu ne ko yow yaa gën a xam ne ñi man man tontu mooy uffin lakum wa ndax da ngeen di da ngeen jaamu loo xam ne mënta mënta garder boppam sunu leen wax lan la ñu ne xarriqu wansuru aalihatakum in kuntum faa'iluun mooy leen ko ñu ne suñu ji nga xam ne yonent yàlla bi daf koo doodal moom ko lakk ñu daal di diir boo xam ne ñëpp dañu leen sas ay ay matt ñu def ñu taal ba nga xam ne ngenaaw yi ci kaw dañ daan naaw dañ daan daan rek ñu daal di jël mbaq lañ ko ndax dem nañ safara tàng na mënuñ ko jege ñu dem mbaq mu dem sànni ko ko ba mu ne sànni ko nag yàlla daal di ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahima mu ne yow yàlla mu safara si seddal ci kaw ibrahima bu mu sedd bu koy lor bàyyi mu ne su waxutoon wa salaamun kon dana ko rey rek day waaye yàlla jël jikkoy safara jikkoy safara mooy la dafay lakk waaye nag yàlla dindi jikko yooyu nga xam ne lakkatut matt ma nga xam ne moom lañ defoon foofu nga xam moom lañ taal yàlla jox ko jox leen digal meññ koy téef yuñ rek lu mu bëgg rek ñu di ko meññ rek day bañ koy bañ koy bañ koy sànni ci safar euh, rafetee nañ ko yàlla mu daal di ñëw solo ko mu na bañ demee ñu indi ay malaaka ko wéet mu dund bi yëpp la ma toog ca fa ca fara suma àddina daal ba loolu amee waaye yu ne yonent bi la nga xamee ne moo fay safara soosa dindi si dindi dindi jikkoy lakk yi mu ne mu nekk di jër jëri te tàkk fekk loolu itam wax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax moo tax lépp loo xam ne yàlla bind na ko rek mu ne faxat yi min ruuxi naa ruuxu googu malaaka mi ngi koy ni ngi dundee ci ruuxu waaye nun malaaka yi itam seen ruux mooy ruux gi nga xam ne mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi nga xamee ne moom la moom yonent boobu sallallahu alayhi wasallam tey dañuy fàttaliku tuuti rek ci eh, ab juddoom bis bis be dimanche yee passé dañ doon fàttaliku bis bi mu juddoo waaw bis boobu nag su jotee Mawlana Cheikh Ibrahima mi xam ne moom dafa xiir ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñii dañuy ñii Sénégal sax nga xam ne mooy seen aada ku am doom da ngay nekk ba mu am semaine nga door koo ngénte soo demee ci Sénégal itam am na dëkk yoo xam ne gàmmuwaat mooy semaine bi la ñuy màggal am na yoo xam bu njëkk bi waaye nag nga xam ne dafa xeer ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moom dafay def bi mu juddoo ba pare su dee si mu defaat ko rek day loolu yàlla gi jagleel na ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ba loolu yonent boobu sallallahu alayhi mooy gën ci mbindeef te mooy yàlla moom la njëkk moom la bind mu ne ko def naa la ngir suma bopp ñi yëpp def naa leen ko ana min nuurillahi wal muminuuna min nii bàyyi mu ne xanaa daf koo saay daf koo daf koo suturaa rek waaye waaye lépp loo xam ne mi ci kaw àddina kay ci yonent yàlla Muhammad la jógee lu jege lu sori lu kaw ak lu lu suufe lu tàng ak lu lu lu sedd rek day yëpp ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi yow ma alastu bi rabbikum bis bu yàlla di delloo addina bi ci na meloon kenn ku ne daf lay delloo ci sa baay sa baay ñu delloo ko ci baayam kooku ñu delloo ko ci baayam moo ba ba mu dem ca aadama rek aadama ñu delloo ko ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu delluwaat ca asal mooy abad rek rek mu dell mu muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku moom la ñuy feetal su fekkee ne tajee nañ lépp loo wax ci moom rek moom yëkkati ko la moo tax waykat bi di wax ne wan fi bi daa zaati ma shita min wansi bilaa qadari yi ma mu ne lépp loo xam ne tax tax taxera ak yëkkati ko rek mën nga koo askan ci yonent yàlla Muhammad yaa ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi tàmbalee maay soo commencé nga see bo nga ndax moom wax yëpp lépp ko askan mu am lu gën a tuuti ci moom ci xàqam rek kooku moom mooy mooy bisu borom bis bii tey nga xam ne tey jii ci dañ ko tuddee Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ki ñu ki waaye mooy Muhammad ba nga xamee ne moom yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma nga juddoo ca xuram Abu Taalib ci gàttal ci xuram Abu Taalib foofu la foofu foofu la ca Makka foofu la juddoo ci amul fiili ca atam ñaay ba nga xam ne Abraha Yamaani daf ne woon dafay toj kaaba gi ndax benn am yaaram boo xam ne dafa jël ay cabinet yëpp ko ca tabaxam ba rek rek fekke daf ne woon yaaram yi ni ñuy dox di jaar di jaar nii waxtu wu nekk ñuy ñaan ñuy mànge ñu dañ ne ab néeg la boo xam néegaw yàlla wooy moo tax ñoom ñoom ñu dem di koy barkelu mooy danaa leen defar néeg boo xam moo ko gën a màgg moo ko gën a rafet de ngeen ñu em ba kenn dootu dem ca Kaaba ga rek de ba ko tabaxee ba pare benn yaaram daal di ñëw moom ko ne dafa dara daal di jël ay kabine daal di jox ko ja mu ne ku def lii ñu ne ko kii de ab ab yaaram la rek day mu ne waaye kon nag danaa toj seen Kaaba gi nga moom moom lañ gën a fonk rek day Kaaba googu nga xam ne moom aadama mi nga xam mooy mooy bàyyi doomi ka doom mi naa ko rek day fe fi la ko fekk aj na ñeen fukki yoon ñu ne lu mu daan war ñu ne Adama dafa koy dafa guddoon ma eh, xëy suy dox eh, boppam yi dafay dafay ak garab yi rek day moo taxoon leeloon moom Adama moom ci Hind la daan jóge di dox ba ci ga ba ci ba ci ba ci ba ci Makka mu aj ñeen fukki yoon bi leen yàlla wàccee ci aljanna fekk nag daf leen lekk def leen boy leen ci lu leen neex waaye bu leen lekk garab gi ñu ne nag ba ñu ne iblis moo ñëw jax-jaxal leen ba nga xamee ne jaxal jax mu daal di jabar ja daal di lekk ci rek daal di may may dencal aadama genn wàll ba mu ko lekkee rek ay mbubam naawtu yeneen waxoon naa leen ne bu leen jege fekk yàlla moom moo bëgg gën a doomu aadama moom bëgg a defar kaw nu boo xam ne rek aadama koy jiit te mooy seen ndey te doomu aadama yi def waaye doomu aadama yooyu seen sang mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñi nga xam ne ñoom lañ koy yónnee nag ñoo ñu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa doon na nettali ne am na aw nit woo xam ne bëgg naa leen bis bu yàlla nangoo keram yi ba nga xam ne dara desu fi lu may suma ker gi may keral dinaa ko bokk ak ñoom ñu ne ko mu ñooñu ñooy xanaa ñooñu ñooy ma ñooy yonent yi mu ne déedéet ñu ko xanaa ñooñu ñooy malaaka yi mu ne déedéet mu ne xanaa ko ñooñu ñooy awliyaaw yi mu ne déedéet mu ne ma ñooñu aw nit lañ mu ne ñooñu aw nit lañ doom yi aw nit lañ yoo xam ne dañ maa dégg rek gisuñ ma ñu daal di bëgg ma seede leen ne bis boo xamee ne yàlla jël na keram yëpp ba ke dem dem ne suma ker gi danaa ko bokk ak ñoom rek day loolu mooy xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax yàlla di ko wax ci alquran ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruna bil maarufi wa tanhawna anil munkari yéen yéene xeet yi nga xam ne yéene gën ci xeet yi lu tax na ngeen gën mooy da ngeen di sant ndigle yi di tere tere yi rek day moom ñooñu ñooy xeet woowu nga xam ne yonent dig digoon na leen moom pare bi mu ñëwee yàlla wàcc ci moom ne wa ma arsalna illa rahmatan lil alamina yónni mu la lu nga ñëw indi indi yërma ci mboolem mi daa ko ni yërma jooju bàyyi mu ne tàbbi ci bépp mbindeef te mbindeef mbindeef ku dul yàlla rek moo ci mucc ku dul yàlla rek mooy yàlla yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw dafa ñëw ci mboolem mi nit yeeg ngenaaw yeeg yeeg yentant yi waaye nag ñu xam ne ñoo xam ne waaye ñu ñu sant yàlla ñi nga xam ne bokk nañ ci xeet bi nga xam ne xeet bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa te moom la yàlla digoon ne ko ci ñooñu laa yónni moo tax ba adama ba mu bindee aadama aadama dafa dafa bind xawaa ca saasu ñaare ba mu ko bindee ca saasu ñaare saasu mujj mu daal di ci gis ko daal di may ko ko can gam def ceen takkee a xaw mooy julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam juróom ñaar yoon rek ba loolu amee nag buy dox rek gis mbindaa ko ni topp ci gannaawam ne man mbindaa ko ni nga xam ne topp ci ma gannaaw di sabar waxtu nekk la ne ko li tax ma bind la li tax ma bind lépp lu ma bind mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy gën ci mbindeef yi leer googu maa ngi ko denc ndigle ndax ñeema ko yónni jotaguñ jotagu rek day mu ne yàlla defal ma ko ci suma gan suma kan ndax ma jàkkaarloo moom moo tax nag yàlla ñëw ñu def baram sànnikaay bi ñu daal di def ci siru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne moom ñoom rek ba ñu leen feewee weewu topp ci baram baraami sànnikaay bi ñu def ci abubakar sadiq bi nga xam ne mooy bugar baram ñu def ci abu omar ibnu benn bi ñu daal di def ci usmaan ibnu affan baaraamam sànqale ñu ne ñu def ci siru Eh, eh, ali ibnu abi talib ramallahu wajhahu loolu tax ñoom ñooy xulafaa rashidina bi fiñ bi ñu fi jógee yàlla moo leen ñoom ñoo doon yonent sallallahu alayhi wa sallam aboubacar saddiq mooy mooy ñeenti sax ñoo àndoon ak yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam ba muy waaye ki ci jiit ci ñi nga xam ne njëkk ci yonent yàlla Muhammad mooy aboubacar weneen danañ aboubacar di ku ci moom mook ali bàyyi Aliou moom la njëkk ñu ko jox baayam rek mu yar ko këram moom moo tax ñu ko wax karam la aw jëw master jodal mu yaroo ci karo yéen moo tax ba ne yéen mu daal di xëy day suma borom mooma yónni ci ak ko ni mu ne ko may ma ma dem seet suma baay mu mu taalib ba mu demee man day yàlla ko yónni mu mu ne ko ma gëm ko ne ko du ma la wax du ma la wax nga weddi ko mu yàgg yàgg bu tàggoo dund fa tey mu ne ko dégg na li nga wax daal di ñëw law yonent bi laa ilaaha illallaah ashhadu anna moom itam ci jigéen ñi moo tax ñoom ñi ñoom ñi ci njëkk abubakar ak abubakar ak aliyu ak ak xadijatu ak ak yi ñoom ñeent ñooñ mu ne ñoo njëkk ñu ne ci njëkk nag kon baay mu da wax dàqowut Aboubacar dugg ci mag ñi Xadijatu mooy njëkk dugg ci jigéen ñi Ali ibn Abi moo njëkk dugg ci jigéen ñi rek day Ali ibn Abi Talib moo dugg ci jigéen ci ci ci góor xale yi rek day ñoom ñett ñooñu nag ñoo njëkk ñoom ñeent ñoo ñoo ñëkk ci diine lislaam waaye danañ lu nekk ba la ba yàlla yónnee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ko yónni mu daal di ñun ñoo ko ñëkk a ñoo ko ñi ànd ak moom de waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo ci topp juróom ñaar ñi nga xam ne ñoom lañ gën a mbugal ñoom lañ daj nañ lu nekk ñu aliyu doole malaaka la amee woon waaye mu ne wantu gë wanentu mu ne fe wanentu bët la kum jeg sa bët mu nga bàyyi bët Abubakar sa alalam ju bari boo xam ne moom itam ak bëkk léegi moo tax kenn mënta àgg ci moom rek day ndey xadijatu moom itam moo njëkkaj gu ci nii moom moom moom itam alalam ju bëri boo xam ne képp ku daan commerce moo lay jox capital yi day ba nga ne mi ngi jébbal boppam yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam booba moom moo gën a riche ci jigéen ñi rek altine lañu yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dimanche lañu yónni yonent altine lañu yónni sallallahu alayhi wa sallam ñoo julli julli fajar rek day Ali ibnu Abi Talib Aboubacar nag moom commerçant la woon dafa demoon Cham di commerce yi ba mu demee nag daal di gis géej toog fa ay diib bi muy dëpp mu gis genn góor goo xam ne dund na ñetti téeméeri at mu ne mu daal topp ko di ko xool di ko xool mu ne ko ma góor gi lan la mu ne ko damaa gis ay melokaan yoo xam ne ay tegtal yoo xam ne yonent yi nga xam ne moo des ci yonent yi taxaram lay juddoo day góor ga ñi xam ne ñooy ànd ak moom day yow dafa naa gis man dëkk rek waaye des na ma loo xam ne xaw ma koy sa jumbax mu ñël ma sa jumbax mu daal di séer ne ko tigi yow la yoon boobu benn waxambaane moo xam ne mu saakoon ci géej ak géej ak géej ak dee la ak mag moo xam ne moom itam mag la ci ci ci ci ci dëkk bi rek rek moom ñoo ñu ñoo ñoo njëkk ànd ak yow rek mu ne daal jox ko ay bayti ne ko soo demee da nga fekk yonent bi boo xam ne rey yoon ni ne ko ca xaram soo ko gisee nga wax ne ko dund naa ñetti téeméeri at di ko fuuglu pour gis ko waaye su fekkee gisuma ko itam na xam ne ci diinam daa dee day daal di day ba mu ñëwee nag moom Aboubacar Saddiq fekk boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu naan Muhammad yonent yonent na mu daal di ne xaaral mu dem seeti ko rek day ba ko yonent bi yeggee fekk mu ngi ci daaru Arqam ibnu Arqam mu daal di ne day moom ne ko Aboubacar Saddiq yàllaa ma yónni ci yow ak mbooleem bi daa koo ni bañ koo bokkaale mu ne ko luy tegtal luy sa tegtal yàlla ku ma sa yónni dana la jox tegtal mu ne ko góor ga nga tasee doon ca ca ca ca ca Saam mu ne ko ak góor goo tasee ca Saam loolu du wax ñaar kenn xamul ñaata góor laa fa taseet mu ne ko ka nga xam ne fee dundoon na ñetti téeméeri at tam yónnee woon la bayt yi te doon seet sa jumbax bi rek mu ne ko ah loolu ku la ko wax man man rek maa jógee maa jóge maa jóge Saam tey ku la ko wax mu ne ko loolu suma borom moo ma ko wax mu ne ko boobu borom tey mu def suma borom tàllal sa loxo ma jaayante yow ne ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def nag nga xamee ne yàlla yónni na ko ba mu xam ci ci xuram Abu Taalib li ma wax nañ ca amul fii li foofu la njëkk foofu la foofu la juddoo booba lu xew rek dañ ci dañ yaaram amuñu woon date amuñu woon taarix li nga at mu nekk la ca na siiw rek loolu la ñuy tuddee at moom rek day mel ni ñu ne ci jamonoy corona bi moo tax jamono jooju mooy mooy euh, euh, borom waa waa kii waa baaxa amul fii waa baaxaaj baaxa kii ñi nga xam ne ñoo ñëwoon mu mu yàlla leen kii leen yónni woon mooy ki nga xam ne dafa ñëwoon bu abrahatul yamaani ne dafay ñëw toj ci kaaba gi ndax benn yaaram dafa sabote kaabaam ngi rek day tabaxam bi mu doon tabax mu ne ku def lii ñu daal mu jël eh, armée boo xam ne ay ñay la ñay wa ki nga xam ne moom moo jiitoon muy ñay abraham boobu mahmoud la tudd rek day suñ ko jubalee màkk rek mu bañ suñ ko jubalee feneen mu nangu rek day waaye bañ demee di bañ dem ba jub màkka nga xam ne benn bés rek moo leen dese ñu àgg ñu daal di sëpp sëpp foofa di xar ba subaa ñu ñëw toj màkka rek day ñu fekk foofu ay gëlëm yoo xam ne ñaar téeméeri gëlëm yoo xam ne Abdul Mutalib wax moom bàyyi maam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bàyyi mooy bàyyi Abdoulaye Abdoulaye mooy jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ demee nag mu daal di yundu ko ci bergenne bi daal di génne góor gi nga xam ne yaaram yi foofu moom lañu doon wax Shaybatul Hamdi borom béj jaawab leer bi nga xam ne leer ak yonent bi sallallahu alayhi moom rek tey man ma jaa góor gi nga xam ne gis naa ko màggaay ma boo xam ne su ma gàngu naa gi du ko bokk ak kenn te kii ñi mu mu ko tàcc ci suuf rek daal ko daal ci suuf ñu ñaaw ñu toog ba ba Abdou Moutalib daal ñëwee mu ne ko marhaba say say sangab Quraysh ma doon dox mu ne ko man day dafa amoon su may gëlëm yoo xam ne dañu ne saarma bi ñoo ko jàppale day mu ne ko taa yaakaaroo yàkkat ba ma la séenee dama laa nawoo na naw ba nga xam ne bëgguma toog ci suuf fi ma ko gi di la di la bàyyi moo tax ma ma lalu ci suuf nga ñëw seen kaaba gi nga xam ne moom laa ñëw pour toj ko nga xam ne da ngeen ne moom ngeen gën a fonk ma nga xam ne naa nga am ay ay junne junne at la am rek day ma di ko bëgg a toj yow waxoo loolu xanaa nga am li ay gërëm mu ne ko gëlëm mu ne tabax booba am na borom borom moo koy gardeel boppam man su may gëlëm laa moom jox ma su may gëlëm mu ne jox leen ko ay gëlëmam su subaa su ma tojee maa daal di boole ko ci rek day jiraale ko rek day noonu lañ def nag fekk kaaba googu xam ne moom ñëwoon na pour ni ko toj adama adama aj na ko ñeen fukki yoon ñu daan jógee di ñëw ñeen fukki adama kon kaaba gi moom ak adama ba nga xam ne yàlla yàlla yàlla defar na kaaba gi kaaba gi fi mu toll ci àddina bi fi toll ci place barab bi mu nekk la tolloog moom ci kaw asamaan si moom mooy mooy mooy mooy arché malawul ni nii mi daa ko gi noonu la ñoom la ñuy wëree ci kaw fii fii si inde ñoo tax malaaka yi ñoo ko njëkk tabax bu njëkk bi tabaxam ñaareel bi aadama moo ko tabax tabaxam ñetteel bi caatam mi nga xam mooy siise rek moo ko tabax tabaxam ñaareel bi yonent yàlla ibrahima moo ko tabax rek moom la alquran ni nat wa iz yarfau ibrahima alqawaida min albayti wa ismaila rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alim ba mu koy tabax ba mu paree dafa wax ne yow yàlla yàlla nga ñu nangul suñ suñ rek yàlla nga doom joo xam ne doomi màkka la mu jël juddoo fii di oote jëm ci yàlla rek moo tax mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu wax ne man maay ñaan ak yonent yàlla Ibrahima gëm noon ñaan ci Kaaba ga waaye man maay dëgëral Isa bi nga xam ne itam ba nga xam ne na bay kii ba bu ko yàlla yónnee amul benn yonent boo xam ne yàlla mos na ko yónnee rek lu ne soo tasee ak yonent yàlla Muhammad sallallahu na nga ci kawam rek moom mu tax mu tax mu boobu yàlla mosu ko benn yonent dafa lay wax ne soo tasee ak na bàyyi sa sa mission mission jeex na moo tax yonent yàlla Ibrahima mi yonent yàlla ta mu ne mu bashirukum bi rasulin leen di bégal ab yonent boo xam ne su ma fi fekkoon man da jaayante moom ahmadu la waaye ahmaduna ca kaw kaw te mooy mooy cant cant ak yàlla rek xeetam ahmaduna lañ tudd moo tax mu ne man maay man maay kii yàlla di indi bàyyi mu yow alastu rabbikum mu fëgg bunta ba aljanna ñu ne kan la mu Muhammad mu ne man maay téye drapeau bi xam na sant yàlla bi maa ba maaka mi ne kéew lañ ma tigi digaloon mu daal di fëgg nag mu njëkk moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fekk boobu way yonent yëpp téeméeri ne ak ñaar ak ñeen ñi ak ak téeméeri junne ak ñi ak xadim téeméeri junne ak ñeen ak ñeenti junne ak ñaar ak ñaar fukk yoo xam ne moom mooy seen seen lim bi ñoom ñëpp am na ci ñoo xam ne yàlla jox na leen téere am na ñoo xam ne joxul leen téere ba leen yónnee rek ñu ñëw feddali li nga xam ne moo jiitu woon rek day waaye ñu téere yi nga xam ne wàccee na ci asamaan téeméeri téere ak ñeent la yonent yàlla Adama wàccee nañ ko ci moom yonent yàlla yonent yàlla Isa da bi nga xamee mooy caate Adama wàcce nañ ci moom juróom fukki téere bi nga xamee ne uh, Idrissa bi nga xamee mooy Axnut moom wàcce nañ ci moom fanweeri téere yonent yàlla Ibrahima wàcce nañ ci moom fukki téere yonentu yàlla kii Moussa moom itam wàcc nañ ci moom fukk rek rek ak tawet ak linjiil ak zabur ak furqaan mooy ñeenti téere yi mooy mooy ñeenti téere yi nga xam ne ñoom ñoo tënk yooyu yëpp ñoom ñëpp nag alquran mooy seen mooy mooy seen tënk rek boo xam ne lépp lu nekk ci alquran lépp lu nekk ci ñoom nekk na ci alquran te li nekk ci ñoom ci alquran nekku ci benn ci ñoom rek loolu nag moom yonentu yàlla Ibrahima moo tabax taw xam ñeenteel mook doomam ji Ismaayla moom la alquran di netti noonu tabax ab juróomeel bi kii ñoo ko tabax jurhum yi juróom yi ñoo ko tabax tabax ab juróomeel bi juróom amaali xatu yi ñoo tabax tabax ab juróom bi rek day tabax ab juróom ñaareel bi moom la Quraysh moom la Quraysh doon tabax ci jënn ci jamono yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam booba ma ngi ci fanweeri waaye yónnee guñ ko ñu daal di dem kaaba gi nag dafa am mbënd moo xam ne dafa defoon tojoon ñu di ko tabax bañ tabaxee ba àgg fi nga xam ne fii nañuy teg maqaama Ibrahima ñu daal di ñu rewerante ku ñëw ku ko ci teg rek danga jiitu ci sag nawle rewer ba ba àddina day yaag say mbokk ñu dañuy na toog nañu ay fan yoo xam ne ñu ñëw su subaa nag nañ tooxal nañ taxaw ci baaba jibril bii ku fi njëkk a rek ñu ko suñu atte lu ñu atte ñu nangu ko waaye bañ taxaw ba lewee di xaar ku njëkk a jaar ci bunt bi rek yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne tëll daal di ñëw ñoom ñoo ko tuddee woon aminu ku ñu óolu ki rek day mu ne ñun tànn nañ tànn nañ waaye yàlla tànn nañu ki nga xam ne ñun ñoo ko óolul suñu bopp tuddee ko laminu mooy ne lan la ñoo ko ñun day dañ doon werante kan mooy tabax kaaba gi rek day kan kan mooy teg jéem xajarul aswad mooy leen ñu ne nag yow nag loolu atti ñu ne nangu nañ mu ne waaye man daa leen defal loo xam ne lu sedd seen xol la ñu ne nañu indi malaan mu rëy dañ indee mu jël xeer wi daal teg ko ci ñoom ñëpp ñu jàpp ci ñoom jàpp ñu ñëwee ba ci sax waaye ba mu jàpp ko ak loxo mi te yooyu teg ko foofa xajarul aswad boobu moom mu nekk ci koñi kaaba ga li bàyyi bàyyi wax ne xamuñ ci àddina dara loo xam ne aljanna la jóge lu may xajarul aswad rek moo tax nit ñi di foon di xeeb foon ko rek koo xam ne na nga am nga ngànd pour ko moom soo yëkkatee sa loxo rek moom ñi xam nañ looy ba loolu dafee ba dafay juróom-ñetteel bi bu Abdoulaye ibnu Zubayr xaj Abdoulaye ibnu Zubayr moo ko tabax tabaxa bi tam mi nga xam ne yaayam mooy zaata xay ni yow doomi doomi Abubakar Asmaa bint Abubakar moo njëkk a juddoo bi ñu yónnee yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de moo tax ñu zaata ne tax xay ni boobu nga xam ne mooy doomi Abubakar yonent sax ba mu demee daal di wax Aboubacar ko yàlla jox na ma ndigal ma ànd ak yow ñu daal di dem ñu nekk bëgg yi ba ba timis ñu daal di dem ba ca pax ma nga xam ne mu jëbalu sur di dem ñu làq ko fa fekk nag yonent bi sallallahu ma nga ànd Aboubacar fekk sonn nañ nag mu ne ko bala ngaa dugg négal ma dem seetlu ku ndax lu ci nekk ba mu duggee ca fekk def ay ay bax fekk la sol moom Abubakar mu jël benn mu bi di ko xotti di ko saañe tey des benn rek day tam boobu jeex na su boobu dootu am lu mu jullee mu ne yéen na bisimilah ñu dugg fekk yonent bi nag sonn na ba mu ñu daal tëdd ci ay penkam daal nelaw waaye nelaw yooyu dafa nelaw gis ñaq wu nga di sotteeku ci mu eew eh, Abubakar muy génne ci Abubakar mu ne Abubakar lu xew ko dafa am loo xam ne ma mata muy bi ke jaan la boo xam ne mu ne ceeb mu mu dee at ci jaan jooju am sa gudd ci ci ci sirat rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba ñuy wax ne melokaana yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne xaram lay juddoo te dana dem Medina mu ne mu mu ne ñoom muy mu ne am na fa junne at yoo xam ne gis yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam moom la ba dara desul lu may mu gis ko rek abubakar daal di tànkam daal di ko pax lu mu taxtu ko rek day yonent daal di raay ko mu daal mu mu mu mu mu mu daal di jëm ci doxam ci fa ak ñi nga xam ne foofu la gàddaay woon rek day bi mooy na abdoulaye mu zoe tabax fukki xajaay ibnu tabax moo tabax booba moo fi nekk ba léegi moo tax na ara buur bi doon nañ wane ay ay ay ku nekk di wane waaye ci jamono Malik Faysal teewe nañ jamono jooja nga xam ne dañ doon def mutamar islami bi te mag ne dañ doon Kaaba gi diggante ak xaama Ibrahima foofu nga xam ne dañ teg xeer nga xam ne ci la yonent Ibrahima doon taxaw ak doom ji Ismaayil rek de du set suñ tawaxee wàcc rek suñ ñëwee fekk xeer wi gën a màgg rek de ci toox bi mu ci mu emu kaay rek de mu ñëwee nag foofa dafay xat ndax tam ne néegi néegi nit ñi ñoo bëri suñ ñu ñëwee foofa la tañ ci loolu am léegi dañuy taxawal maqaama Ibrahima toxal ko fenn rek de bàyyi daal di leneen li nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy mooy yoon mooy ñu bàyyi fi mu ko fekkoon fii buur yi fi jiitu yëpp ba kenn su ko te am loxo yéen ngeen bëgg ci am loxo dina ci téere boo xam ne da subula sam fii xaayin ma xam mu ne yoonu jàmm daal mu ngi bàyyi mooy bàyyi ma xaama bi ci fi mu nekk rek day waaye bañ toogee ba nga xam ne toog nañ ba guddi ñu génn ñekk ñëpp ñu daal di gas fekk nañ ay ceen yoo xam ne dafa lëkkaloo ak maqaama Ibrahima ak kaaba gi nga xam ne toj bii daal mooy toj kaaba gi rek defar nañ ko bàyyi rek day Mawlana yàlla nañu ko yàlla yokk yàlla nañu yàlla nañu ko yàlla fay ba loolu amee nag kaaba googu moom yoon xajja kii kii ñeent fukki at aadama def koy faj tabax bi nga xam ne fukkee li tabax bi rek day yonent yàlla Ibrahima kii moo ko tabax rek day xajjaaj ibnu Yuusuf rek moo fa nekk ba léegi man loolu nag moom aadama gannaaw bu mu fi nekkee ba demee leer googu xam ne defoon nañ ko ci moom suy dox rek gis malaaka yi topp ko mu ne yow suma borom ñi may topp lu ñu ma toppee mu ne ko leer gi nga xam ne moom tax ma bind la bind bind ma bind mooy yonent yàlla Muhammad leer googa moom laa def seen digli moom ñoom moom la ñuy porté leer day moom la ñuy gis mu ne ko waaye defal ma ko mu féetee ma kanam ndax ma itam ma di ko gis mu def ko ci baaraam baaraam baaraam baaraam yi ndey jool juróomi baaraam yi rek mu ne ko ko juróomi ñeent ñeenti saaba yoo xam ne mënuñoo tàggoog moom rek ba loolu amee nag moom yonentu moo tax yonentu sallallahu alayhi wa bi ko yàlla yónnee bi mu ko yónnee ca fa fa mu juddoo ca amul xii amul fiili ca ki kii Abu Taalib kuram Abu Taalib Abu Taalib ba nga xamee ne yàlla yónni na ko nag mu nekk fa ba mu nekkee ba mu fekk ni mu ngi xamee ne moom yonentu boobu sallallahu alayhi guddi gi dafa jeex waaye dañoo wax ne yonent bi ci gàttal moom loo waxee ci moom lu bari la loo waxee ci moom lu tuuti itam lu bëri la lu tuuteem lu bëri la lu bëreem lu bëri rek la waaye fàttaliku bi rek moo am solo ndax ñëpp bàyyi nañ seen itte yi seen yëpp ñoom toog toog di di di fuglu bisab bi nga xamee ci lañ toll yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad waaye ba nga xamee ne yaayam yaayam may nañ ko Abdoulaye mi nga xam ne Abdul Mutalib mooy maamam Abdul Mutalib moo moo nekkoon mooy Saybatul Hamdi ki nga xam ne moo njëkk a dëkk ci Màkka ci ci ci ci ci ci maam yi mooy ki nga xam ne mooy nekk fa mooy mooy maam yonent moo moo tax ñu ne Qusay ibnu Kilaab bi nga xam ne mu nga dëkkoon ci Yemen moom fukki de fukki penc ak ñaar saba benn dëkk la woon ci Yemen boo xam ne dafa si dafa développé woon ba xam ne dañuy bay noor rek nawet yaa al alquran a ngi koy nekk laqad kaana li sabay fii masaakinihim ayatin jannataani an yamini wa an shimaali dañ faa nekkoon mu mel ni aljanna joo xam ne dafa nekk ci kaw suuf rek waaye nag ba mbënd mooma tojee nga xam ne mooy seen baas bi ñu daan denc seen ndox yi mu ne nag mu daal di ñëw tuuru ci dëkk ba ñëpp daw daw tasaaroo tasaaroo booba ci la maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki tudd Qusay ibnu Kilaab ñaa daw dem Misra ñaa dem Saam ñee dem ñee dem Iraq dëkk bu nekk ñu daal di dem fa ñu dem fa ba nga ne ki nga xam ne mooy imaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki demoon Màkka nag mooy Xusay ibnu Kilaab Xusay boobu ñu ngi ko jëlee ci turam sori sori ba mu jógee daal di ñëw ba mu ñëwee toog fa moom mooy maam yi ñeenteelu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam buur ba fa nekkoon nag mooy mooy Jurhum yi ay yaaram la ñoon yoo xam fa nekkoon buur ba benn bis mu daal di naan ba rek ne ñëw ma jaay ko kaaba gi ci ci ci mbusam mbusam sàngara rek day mu ne ko man mu daal boobu nag séréa amagut mu daal di jaay ko ko yaaram nag suñu signé dara dootuñ ci dellu gannaaw ñu signé loo ko ba mu signé ba xiqi bëgg caa génn mbooloo mi yëpp ne ko eh, ñu ngi seede ne yow yaa ko jaay mu ne ko mu wéyal ko mais bàyyi mu ne yàlla ngi préparé yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax mi ngi waaj a ñëw te moom moo tax ma moomale ko maame ñeenteelam Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Mutalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay mooy maame juróomeelam ba mu nekk moom Xusay ibnu Kilaab amoon na ñeenti doom Abdou Shams ak Abdou Dar ak Abdul Manaf ak Nawfal ñoom kenn ku nekk nag mu sedd mu jox la benn dëkk benn benn benn parti ki nga xam ne moom mooy naanal ak gi ba léegi ñaar ñi nga xam ne ñoo amee caabi ji ñoom ñi ca ca yooyu la bokk rek day kii ñi mooy ñoo ñooy ganale gan ñi di leen nandal mu ba mu defee ñu naa nekk fa ba nekkee nag benn bis nag ñoom ñu xeex ak juróom yi juróom yi bëgg leen ëpp doole ragal seen ka kaaba googu ak ak ak ak ak seen zambi rek day pour ñeneen jël ko rek ñu jël lépp loo xam ne amoon na valeur ci seen boor daal di def ko jël ba mu fees ñu kaste ko bokkoon na ca ma nga xam ne moom lañ moom la xaabil ak xaabil ba ñu reyantee moom moom lañ ko jote woon jën yee urus la ak weye urusu xam ne amul ci àddina bi mu ak buur yi nga xam ne jiitu woon nañ ñoom ñëpp kenn ku nekk rek naan andi kaaba gi ay addiye rek day ñu daal di jël yëpp def ko ci zam-zam suul ko ba nga xam ne su seen noonu duñ ko xam gannaaw juróomi téeméeri at nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Usay Abdul nga xam ne moo mooy mooy mooy baay mooy maamam juddoo fekk nag moom moom ba juddoo nekk foofu ca nga xam ne benn bis nag mu daal di tëdd rek génn daal ñëwal ko ne ko Abdul Mutalib sa boroom gas zam-zam mu ne ma jaar zam-zam ba mu tëddaatee mu ne ko sa borom mu ne nga jaar nga gëm taamu tuumi si xaamu suux min zam am na fanweeri tur bàyyi mu ne tur yu bëri tegtale ma màggaay ak liñ ko tuddee rek day ba loolu amee nag ba mu laajee nag yow borom ñu sax ci mbir dana tax nga àgg fa nga jëm ne yow suma borom teen bi nga may gasuloo fu mu nekk ba mu tëddee nag xaati dikkal ko ne ko da nga ko fekk ca ca kër kol ndongo ak ak ak CBC ak ak CBC ak xorom bi ak ak bi rek ba loolu amee nag benn bis mu del jël jël gas gas gas gasukaayam di cap capal ñoom ñu naan wax Quraysh ñu ne kii de moom la ñu wax ne sa Quraysh dafa dof mu leen dofuma damay gas ñu ne ko zam-zam boo xam ne réer na ci maati ma foo ko jëlee rek day ba mu ci nekkee benn bis nag mu daal di toog rek xaati mu mu tëdd ci guddi ga nelaw mu ne ko fekk ci kër kon ndonga ak baaxaañ bay copp ak see bërës day mu dox dox ba sonn dal di toog di noppi te nga saam mu daal di toog gis benn benn euh, boo xam ne mu nga ëmbat aw nagam ñëw ba ceeb tool foofu rek mu daal di nagoo siisu ñu xëcc xëcc mu mu daal di rey ko fa daal di daal di fees ko daal di see bërës daal di ko fa mu gis ay ay xoronoom di dox di eeg baaxaañ bay dem ñëw di cëpp mu ne fii lañ ma diggoon waaye ba mu ne cëpp cëppee rek daal di daj benn li nga xam te nga xam ne moom la kii bindoon ci bind bi nga xam ne moom la malaaka yi defoon rek ba nga xamee ax nu kii caatam caatam yonent yonent yàlla aadama mu mu moo ko tabaxam moom moo ko moo ko moo ko pind mu daal di rek Quraysh na da na lu xew mu ne leen man day temps bii ba boobu ba tey lañu doon dañ sama borom dama digaloon ma gas suma teen ma gas zam-zam ñoo ko loolu doo ko fi def mukk laa dina tegee ci kaw say ak say sët mu teg ci kaw nit ñi ñu daal di xeex booba nag sharia amagut booba dañuy dem atti ca buxaaba yi rek nee nañ dem ca buxaaba ba ca xii mu ñu day mu ne na ngeen di dajale ñeent fukki ak fukki nit ñoom Quraysh ñu ne na ngeen ñeent fukki nit yoo xam ne ci doomi tànnee fi dañ bokk rek day ñu boole Abdul Mutalib ñu daal dem bañ demee ñu daal di laaj fi ñu luy atte bi rek day ñu dem a dem dem dem ba ci ñetteeli fan ba seen ndox jeex bañ toog bay dee bay ma ŋaaka ngebbi rek aw xeet yëpp daal di toog fii rab yi ak kii leen lekk loolu na na kenn ku nekk na nga gas sa na nga gas sa bàmmeel bàyyi mu ne évra eh, ñàkk xel duñ seet benn pexe xanaa na bi ngay am doole nga ne na nga bas bameel ku dee ñi deeagul suul la su ko defee kenn wala ñaar rek la ñuy ñàkk suul day ñee waaw loolu ba ñu gas seen ñeent fukki bàmmeel dañ ko ja Abdul Mutalib ne man dey lii du ma ko def toog di xaar di xaar dee gas sa bàmmeel tëdd ci di xaar dee man kay damay nekk ci dama nekk ba dee fekk ma ci rek dañ nañ ma takkal sama gawar dañ ko takkalee gëlëmam mu daal di war ci rek gëlëm nga këddaa weq tànkam rek ndox ma daal di ball cer cer car cer cer mu naan daal di oo leen ñoom ñëpp ñu naan daal di duy seen mbus duy seen i daal di naandal seen i jur bañ naanee ba pare ba nañ leen dem mu fu ngeen di dem ñu ne xanaa ñu dem ca buxaaba mu atte leen ne kay eh, atte benn la yàlla mi la jox ndox mu sedd mi ci ci àllab ker da nañ bi yàlla moo ne jox zam-zam boyal kenn la ko aaye Abdul Mutalib nag daal di def ni sam mu ne nag ñu ne nekk def na xay mu ne yow yàlla lii nga xam ne yaa ma ko sant dama ba pare ba ñuy soom la jibal su laay li ma ñàkk askan rek wallahi su ma amee fukki doom yoo xam ne ñoom ñëpp ay waxambaane yi tooyam lañ su ma taxawee su ma mën a tey ñoom ñëpp ñu mer daal di daal ne nag ma nekk danaa ci rey kenn jaamoo ko yàlla ñu ne diine yu njëkk yi daana ko def ndax yonent yàlla ibrahima bi nga xamee doom ñi nga mooy ismaila moo tax bi mu ko bëggee te dundam bi yëpp dem na at ak ñaar fukk waaye bëgg doom rek moom moo nekkoon ci moom waaye ba ko buur ba mayee ba ma may ko haajara eh, ab taara ñu may ko saarata jabaram ji nga xamee moom moo moo ànd moom la buur ba yoon buuru misra dafa waxoon ne ku rafet rek moom moo jabar ju rafet rek moom moo ko elloo ku ànd ak kii jigéen ju rafet rek saarata ne daal di fekk nag yonentu yàlla ibrahima dafa fiir mu defar kees ba daaj ko daal di ne bi ànd ak moom ba mu demee ba ci duwaañ ba frontière ba mooy ñu ne ko lu nekk ci kees gi mu ne laaj leen ma lu leen neex rek ci duwaañ booba nag li nga xam ne moom mooy moom mooy mooy mooy yi nga xam ne moom moom la marchandise bi dañ koy xaaj ñeenti xaaj benn xaaj bi rek mooy duwaañ bi rek mu ne leen laaj leen ma ko ci urus wala ngeen laaj ma ko ci xaalis waaye kenn du ubbi suma kees gi ñu ne ko dañ ko ubbi nag bañ ko ubbee fekk jigéen joo xam moo gën a taaru ci àdduna bi mooy saa mooy mooy saarata yonent yàlla mu ne li muy rafet rafet nekk ca ca saara rek la ko jëlee rek ñu daal yóbbu ko ca buur ba nag buur ba daal di jël loxoom teg ko ne ko man day dama laa bëgg waaye yàlla sànni am ma nërmalam jinne mu daal di ñëw muy kat caddi caddi caddi caddi bay sang waaye boppam ñu daal di def seeni xar xar baax bañ ko defee mu daal di ximmiliku ba mu di ximmiliku daal di ñaareel yëfee daal di daraat ko ba mu ñetteelee mu ne ko xanaa yow bu xaaba nga mu ne ko man day duma bu xaaba jabari xalil laa kon jëlil du nangu ku ma taxa rek day mu daal di fekk mi ngi amee aw ab ab jaam mu ne ko jëlal suma jaam yi te nga génn suma dëkk bi abal ma mu ñëw ci yonent yàlla ibrahima ne ko man de yàlla musal na ma ci buur bi waaye nag may na ma jaam boo xam ne moom gis naa ne yow sa dund yëpp yaa ngi mébét doom te am nga téeméeri at ak ñaar fukk te man am naa juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent rek day kon nga mën naa am yàlla may na doom ci moom ko waxee doon nag ñu jébbal ko ko bañ ko ko jébbale rek mu daal di mu daal di jël biir ba mu jëlee biir nag xaajara mu mu mu moom xaajara ba sarata xol fiir jar dal ko mu daal di moom itam ba ko fiir jaree rek mu daal di biir moom itam kii moo jur ismaila ismaila moo jur mooy maami mboolem ay yaaram yi isaaqa yi da mooy mboolem mboolem maami mboolem yahud yi rek day ak ñu weex ñi rek day ba loolu amee nag ñoom ñu xar ñaari xale ñu ne ci kër gi waaye ismaila moo mag waaye suñ xeexee rek Ismaayila daal di gañe Haajara xorom ndey bi daal di far kii Saarata xorom ndey daal di daal di sot ko rek day mu ne ko kon nag suma doom ji nga xam ne moom rek laa am te te laa ko jël laa ko jëndee mooy jébeer bi ma la may rek day kon nag na nga génn ak génn kër gi mu ne ko fu ma jëm mu ne ko yow yaa xam waaye génn suma kër gi rek day Ibrahima jël jabar ji ak Ismaayila mi nga xam ne nit ñaa ngi werante ne Ismaayila waa Isaaxa waaye yàlla li nettali ba ñuy tabax kaaba ga alquran dafa wax ne wa id yarfau ibrahima alqawaida min albayti wa ismaila ismaila woowu moom moo demoon moo demoon jasiratu arab rek day waaye bañ demee ba mu doom jëm jëm doom mu daal di ne ko ba mu demee ba ci fi kaaba gi nekkoon mu daal di teg doom daal di daal di ñu ko daal di dëpp fekk indi na leen mbuusam tàllarma ak mbuusam mu ne ko e eh ibrahima uyuwul ko mu owaat ko yoon ñaari uyuwul ko yoon ñetteelu nag mu daal di taxaw gestu ko mu ne ko yaa ngi dem bàyyi ma fi koo may bàyyee mu ne ko suma borom la lay bàyyee mu ne ko sama borom ndax moo la wax na nga bàyyi ma fii ci àllab ke danañ mu ne ne ko kon boyal yàlla du ma seetaan diggante foofa safa ak marwa ñaari ñaari ñaari montagne lañ su xoolee ñu loxtoon gis max mu foog loolu ndox la su demee ba du fekk rek dañuy du du na rek mu daal dëppaat ba juróomi at juróom-ñaari yoon yàlla daal di xaaju jibril ne ko gis nga xale bee di ñu ji ngaaka ngeppi mooy ko dégg laale rek ñu génne la ci wàll yi rek day jibril daal di ñëw ñii ne dafa dóor magam ñii ne déedéet xale bi mu mu weq tànkam rek day ndox ma di génn ngeen car car car car car ajara ba mu ñëwee nag mu daal di naan ba naanee daal di naanal doomam waaye fekk juróom yi nga xam ne ñoo dëkk moom ñoo dëkkoon ci côté boobu ay rëbb la ñu woon dañ rëbb rek ñu gis ay picc ñaar yàpp la ñu ne ma ñaa ma jaara ñaara pour la lu ko andi ci àllab kerte ak nii ñaara pour du nekk lu may foofu fu ndox nekk rek day ñu ne nañ dem seetu ko bañ demee daal di fekk muy ak dex ñu ñaan ñu may leen ci suba ñu daal di ñëwaat gannaaw gi nag ñu ñaan ñu daal di ñu ñu dëkk fa rek day ñooñu ñoo jàngal yonent yàlla Ismaayla ñoo ko jàngal ñoo ko jàngal yaaram ba mag takk jabar ci ñoom rek day ba nga xamee ne loolu yu am na moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónnee bi mu amee bi mu juddoo bi mu amee bi mu ci semaine ba gis na dëkk bi gis na àddina bi gis na ay tumuranke ndax ki taaxam Kisra nga xam ne ñu taaxam Kisra mi nga xam ne junney at sa mejj mas ta buur ba daan dëkk ak fukki junney jabaram ak junney taaraam ak junney ndookaanam taax ma mas mejj mu daal keroog la ba yónn fi juddoo sallallahu alayhi wa la toj fukki toj toj ak ñeent fukki tóor ak ñeent ñeent si daal tax yàqu na rek day mu dal muñ ci loolu ñu ba saawa seen géej ga nga seen robinet yëpp ci lañ doon mu mës na ŋàcc waaye ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo keroog la ko mel ne dañ fa taal safara mu ne mu muy muy muy beneen beneen seen safara sa nga xam ne faas gis nañ leer rek ci safara ñuy jaamu safara moom lañ daan taal moom junne junne xamkat ak junne taxankat ak junne yëppkat ñoo ko ñoo ko daan te xam ma safara sama sa fay waaye keroog ba yonent bi sallallahu alayhi la fay ba nag gamaj buur ba daal di tiit lool gibante ak géwante waxaane dafa gis ak yéen yoo xam ne dañoo takk ci mbal ñu bi ba euh, yàlla furaat romb dëj dem furaat mu daal di oo nit ñi ne leen man kat damaa gis am géwante boo xam ne jaaxal na ma damaa bëgg ku ma wax nag la te te wax ma lu ko lu koy kii te du du ma ko wax ñu ne kenn mënu ko mu oo Abdul Masih mi nga xamee moom mooy jaraafam moo xaadil xudaa mu oo ko nekk dama bëgg nga firil ma suma géwénti gii mu ne ko géwénti gii ci suuf xamuñ mel ni sa téew ba xam ne yàlla ko nekk dund ba kan xam ne am na lu ëpp ñetti téeméeri at moom jëm bi ne aw suux la rek dañ koy tarañ tarañ def ko ci pañe bopp bi ak ci nga ngaataan gi rek moom moom moo nekk rek moo cay yàq waaye li ci des yëpp suux la daan wax xibaaru njëkk yu mujj daana wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aji na ay yoon yoon yoon de daana dem Màkka mu ne ah, arab yi ñu gis nga ñoo fi gën a réer waaye jamono dana ñëw ñoo ënañ indi téere boo xam ne danañ raw àddina bi yëpp man day su ma ko fekkoon naa naa kii rek mu ne Abdou Masih kaasera li ma kii ba gi dem kii ba kii mu fi di ma ba mu ñëwee fekk sa teewu mu ngi sëppoo ak ak dee sa doo du dara ci ci ci saam saam doo du dara sa teew moom a xulli ba dee mu nuyu ko fayu ko mu nuyuwaat ko fayu ko mu sadd ko ay bayti mu ne xifeet ne abdul masih abdul masih ata dikk na ci ci gu gaaw waqad aqbala ala mu ngi jiblu ci satih mu ne mu ne arsalaka maliku saasaan mu ne ko yéen buuri saasaan moo la yónni rek lin si xaaqil imaan wa xumudin niraan mu ne ko ndax Iran bi toj ak safara si fay day mu ne ko loolu luy dikk dikk na des na fukki buur ak ñeent ak ñett yoo xam ne moom moo des ci Faris ñu demee Faris borom kaala ga ñëw na kabristaan bi kaala ga ca gannaaw borom ed wa ñëw na ki nga xam ne moom mooy indi alquran ñëw na su ñëwee nga xam ne man dootuma dara ci Faris Abdul Masiih daal di ñëw ci mu ñëwee ca ba mu ñëwee ca ba ñëwee ci buur bi daal di ne ko bi mu ko nettalee mu ne ko ah loolu moom loolu fukki buur ak ñeent loolu na xañ na ca waaye fukki buur yépp ñoo teela loolu ba ci jamono Omar ibnu Xataab kenn ki ci des mooy mooy mooy Yazid Jurja moom moo tax moo fekk nag yonent bi sallallahu am na kusa am nga xam ne ne mu ngay gàddaay ba dem dugg ca xuntuwa am na benn boo xam ne dafa ñëwoon da Suraqata ibnu Malik dafa mokk dafa mokk xamoon xamoon xamoon tànk ba nga xam ne xam na ki tànk bu mu gisee mën a xam na kay moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi di gàddaay di dem ca xaaru mu ne di ñuy dox naan tànk bii rek amul sikk tànk Abubakar Siddiq la tànk bi tànk bi yonent la mu ne ñuy dem dem ba ca xurwa ba ca montagne ba moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay kaamteefam aw kaamteefam yoo xam ne su dëggee ci ba lañ ci dafay dafay man day nooy bi may def ci kanam ñi dama ko def ci kanam yonent sallallahu alayhi wa waaye dafay dëgër ba mel ni xeer su dëggee ci xeer na xeer na may itam mboxoon mboxoon yooyu du ma ko def da tagara yonent bi ki nga xam ne dafa demoon ba nga xam ne xeer yi ak balanci yi dañ ko daan dañ ko daan dañ ko daan eh, ragal mu daal di ñëw bañ àggee ci xunt wa fekk xunt woo xam ne yàlla ebal na yàlla ebal na ba baakiim fi tax mu ñëw nen fa mu yónnee mu saxal fa benn garabu xaraas mu daal di mu ne mu ngi rek ak ndeññantaan mu daal di sax fa mu daal di yónnee dafa ay jar ñu daal di lëtt fa rek day ba ñëwee di seet Abu Jahl ne ku andi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dund ak mu dee danaa jox ci mbooleem xeeti alal yeeg bu nekk na asakaam rek day ñoom ñëpp ñu jóg Suraaxata ibn Maalik moom jàmbaar la woon dafa xamoon dafa xamoon aada xam tànk moom ba mu mu daal di ci fit fikkital euh, euh, euh, xasam daal di ba mu demee topp tànk ba gis ce ce ce xunt wa mu ne xunt wi fii de laa gëj a gisee ndax yonentu yàlla sallallahu tànkam su ko dëggee ci xëy ñu tey mu ne fi la gisoon ba nga xam ne ñoom itam ñoom yaaram yi ñëw nañ foofa Utbatu ak Saybatu Utbatu taw di saw Abubakar a nga jàq ba xam ne mu ne kii su sëggee rek daal di taxaw di sang waaye mu nekk su geer danañu gis yonent ne ko na sa xel dal mu tiita tiita tiit ba mu jigéen indi daal ne ko jox xoolal ne ko xoolal mu xool jigéen rek gis benn aw mbedd nay bato baa ngi ci taxaw géej gaa nga ci rek mu ne gis na ñii su ñëwee ñëw ñu dugg ci bi fekk loolu duur lu am waaye yonent moom ko feeñal karaamam rek day ba loolu amee nag ñu ne gisuñ ko su raxtu mooma su su te su xoolee ba gis yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam daal di pëtal aw fasam rek yàlla teel ma fa teel teel ma fas wi rek fas wi daal di ngiro mu daal di caari caari mu ne ko bàyyi ko mu bàyyi ko ko ba ci ñeenteel yoon moom ngiro ba ci ba ci jumba wax ba nag mu ne ko mu caari daal di jooy mu ne ko suma ma la bàyyi suraxatu su la bàyyi gi yoon dootu la bàyyi mu ne ko tuub naa dama mu ne ko dama dañ naa dig alal ju rek yoo xam ne ku la ku la ko mu ne ko suraxatu loo xam ci koo xam ne fa imaanu kisaa na ko toj char ki la ki nga xam ne mooy da mu nga xam ne buuri Faris mu ne ko koo xam ne buñ bis bi moom xam ne daan daan buuri Faris bañ dëppam la solal la ko mu ne ko aka sori yow nga ragal ba xam ne yaa ngi dugg ci ay xunti di nëbbu nga ne daan sirwaan anu sirwaan xurus mu ne ko xurus mu sa wax ko daana ko def moom yéen bi sal boo nga waaye keroog ba isa dul buur nga xam moo des ci buur faris keroog bañ ko daanee dañu dañu dañu soraq solo laxa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon fekk ko gisee mu ne ko mu ne mu ne ko suma jaaru Medina gi googu ci saqat la mu ne ko bi ko ci sart nga laa ilaaha moom ko bëgguma àll ci fukki fan ci la gàddaayee nga xamee ne moom yonent bi sallallaahu alayhi wa ma loo ko jiitu mooy bañ ca tegee ñaari weer ci la gàddaay waaye la ko jiitu fukki fan ci ñetti weer ci la rañaan dem ca kaw rek day demee benn bis dafa xëy taseeg Abu Jahl Abu Jahl di ko di ko kii ko ko këli mu ne abi kab satal lu xew mu ne ko dara xew na de mu ne ko lu xew mu ne ko dem naa Baytul Maqdis démb mu ne ko waxtoo waxaan ne danañ sikki sàkk waaye lii nga ba mu ne ko ool ku la neex mu daal di yaa mu ne waxa ñoom ñëpp ñu ne dël daal di ñëw teew bañ ko dellu ci nga waxoon yonent wa sallam daa neen daal di ñëwaat ak mu ne oo leen Aboubacar mi xam ne moom moom lañ tuddee lu mu wax mu ne dëgg la wax ji tey ñu Aboubacar daal di fax ñëw ba mu ñëwee ñu ne ko déggal li sa mbokk bi wax mu ne du wax ñu ne mu dem na dem na dem na ca bayt maqdis ci guddi gi daal di dem del si mu ko yéen yéen dof kii di ma wax loo xam ne ca ca asamaani juróom-ñaar doxam ñaar ñaar ñaar te ñaari junni ma tul gëm ko kii xanaa kii nga xam ne yéen sax da ngeen dem mu ne kii su ma waxoon na dem na ci asamaan sax ma gëm ko yonent ne ko wallaahi dama bëggoon lu lu seen xel yi attan rek waaye dem naa démb kay rañaan naa naa ba si dërës lu mun daa dem naa ba mën laa la juróom-ñaari fukk juróom-ñaari fukk junne ci pay rek day mu nga xam ne moom yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne rañaan na jógee bayti mak jógee Makka dem Medina mi ngi fekk muy neraw ci néeg mu haani daal ee ko julle indi ko daaba boo xam ne ëpp na fas matul fas te ëpp na mel ni bere kere rek day moo eh, su ne bàyyi mu fekkoon ne fas la ñu ne fasu guddi doxut jàmm rek day waaye nag mu daal di ñëw indi bin indi boo xam ne daaba boo xam ne melo nu yooyu yëpp ndeke moom mooy mooy mooy alburaax mu daal di ñëw ko mu ñëw ñëw yóbbu ko ca màkk ca kii mu daal di julli ñaari raka ñu ne xotti bu njëkk bañ ko njëkk xotti foofu la lañ ko xottee rek xotti bu ñaari xotti bu njëkk mooy bi nga xamee ne moom mu nga ca mu nga mu nga mu nga ca ca taayif ca ca kii ca taayif ba nga xamee nekk na taayif ñaari at yooyee ba amee ñaari weer ak ñaari fan la daal di dem ba ko yàlla mu daal di dem booba lañ xotti xotti bu njëkk ba fekk dafa ànd ak ay moom ñu romb ay till ay till daal di ñëw dàqe leen bërgal leen ñoom ñëpp ñu daal di daw moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu sayda ngi nettali mu ne moom jikkoom mu yàkkamtiwut xememut moo tax doxam mu ne doxam daagu rek yonent da ngay daw wala mu ngay waaxu kenn mësu koo gis sallallahu alayhi wa sallam waaye wala gis nga gis ko muy nelaw nelaw itam benn xarañ loolu mu ne loolu kenn mësu koo gis ak day mu ne dox soo gisee mu soo gisee muy nelaw gis muy nelaw soo gisee muy jàng mu yàlla nelaw tuuti jaamu yàlla tuuti rek day mu ne yàkkamtiwut xememut moom suy dox doxam daagu la boo xam ne moom lay netti nag ni gëmëntu ne mu moom gëmëntu rek lay bàyyi mu ne balaa wax noonu mu ne mu ne bu sayri balaa wax noonu waroon naa wax moom yoon sallallahu alayhi ni mel mu ne boppam dafa rëy kawaram dafa sëq dafa ay ay dafa sëq ba jokkale ko mu ne dafa am faas ak ak sikkiñ bu sëq boo xam ne dafa jokkal ko ba jumbax ba rek day mu ne ku digg ay loxo la ku digg ay tànk la day mu ne bë bë bë dafa rëy bakkan bi dafa yëkkati ko bëñ ñi dafa yaa bëñ ñi dafa sew gémmiñam dafa yaa mu ne nag moom mu ne mu ne ñuul a gàtt aayalu ko gudd aayalu ko ma ngi ca diggante ba rek day loolu nag moom maqaama boo koy may soo ko gisee mu bari moom kenn daal da xam ne kii gudd gudd aayalu ko gàtt aayalu ko rek day waaye su ànd ak mbooloo ñu bari bari bari mu tiim leen ca kaw loolu moom maqaama ba la rek day mu ne ree muuñ la rek day waaye ree bay ŋax-ŋax yi loolu kenn sallallahu alayhi wa sallam koo gisee rek day moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag moom nelawam gëmmantu la nelaw tuuti jaamu yàlla tuuti nelaw tuuti jaamu yàlla mu ne couleuram dafa xonq xonq boo xam ne dafa weex weex boo xam ne daa ànd ak xonq rek ndax lu waral loolu yaaram yi ñi nekk ca dëkk yi ñi nekk ci ca teeru wa ñooñu ñooñu weex mooy seen taar ñi nga xam ne ñoo nekk ca kaw ga nag moom xonq mooy seen taar rek ba ki nga xam ne dañoo bëgg mu rafet ci ñuñ kaw ak ñoom ak ñoom teeru moo tax ñu ne ko xonq boo xam ne dafa weex boo xam ne dafa ànd ak xonq rek bi bàyyi mu ne waaye loolu mooy li ngay gis ci jëmmam ji nga xëyee jant bi ak naaj wi dana ci dal daal mu ne waaye soo summee mbubb mi dafa mel ni etu xaalis weex tàll moomu yonent boobu sallallahu alayhi soo waxee rek soo waxee loolu nag door a wax nag ni muy nelawee door a wax nag ni muy newee kooku mooy yonent sallallahu alayhi wa mooy sang ak way way njëkk ci nit ñi yàlla indi na ko pour indi yërmande ci mboolem nit ñi nit ak jinne ak lépp loo xam ne lu jub ak lu jub rek day ñoom ñëpp ñu ngi taasu ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi kon nag suñ demee ba nga xam ne yàlla jagleel na madinati Cheikh Ibrahim ñoom ñu koy màggal bis bi nga xam moom ci la juddoo ak bis bi nga xam ne ci lañ koy ci lañ ko tuddee Muhammad sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih wal khawal khatim sabaqa nasir al-aqwal صراطك المستقيم وعلى آله حق العظيم